ci kanam tout d'abord mu nuyu Abdoulaye Cissé Abdoulaye Cissé maa ngi lay nuyu di la ziar mbaa yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah Adianaata maa ngi lay fay. les amis difficile plaisir. Euh, <laughs> xam nga Cheikh dafa am ci lu lay dugal nga nekk ci. Mm. yooyu yëpp ci farata la rek waaw ci yooyu la ñu nekkoon daal pour pour yegg si. <laughs> merci Ablaye Cissé alors Ablaye Cissé ñu taxaw ci actualité bi xañ na évoqué nañ ko keroog waaye ñu taxawaat ci Amadou Ba mooy certes jëwriñ bu njëkk bi waaye mooy itam candidat bu Benno Bokk Yaakaar li ñu nemmeeku mooy euh, nit ñi mooy déplacement yi muy def ni mën nañ ko jàppee sax daanaka pré campagne ci présidentielle 2024 bi au même moment am nañu beeg bokk ci kujje gi bu ñu waree def seen i yëngu-yëngu yi tamit dañ leen di indil ay jafe waxoon nañ fi Malick Bougane Gueye Dany te ñii nii rek xaj na ñoom ñoo ci mu mais ay weer ci ginnaaw gisoon na li ñu mel laaj bi mooy ci wàllum politique situation politique ak euh, maanaam ak euh, waajtaayu élection yi fan fan lañ nar a jëm euh, Ablaye Cissé mbaa yëf yi du gën a jafe. xam nga bu yemoon ci premier ministre si Amadou Ba mooy premier ministre mu ngi dem ci ay gox di nemmeeku di xool. di def ay inauguration sax wala di visite de chantier comme li mu defi Tivaouane loolu c'était dans le cours normal des choses bu fekkoon loolu rek la même en utilisant les moyens de l'État parce que moom lay utiliser alors que sur le plan éthique ki nga xam ne investir nañ da nga nekk candidat boo nekkoon ci yenn dëkk yi fa ngay li yewee ko sax toppatoo li nga xam ne nii moom nga ci candidature mais li tax ñu koy wax tey mais du ñu tàyyi nag ci di ko wax parce que le risque effectivement mooy ñu dem ba tàmm li nga xam ne nii moo xew tàmm pouvoir bi moom di def lu ko neex ci anam yi mu ko bëggee avec les moyens de l'État mais loolu Sénégal kenn mënatu ci dara pendant ce temps là ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje gi mënuñoo dem mu mënuñoo dikk fu ñu dem ñu tere leen xam nga dañoo foogoon sax ni amoon na contexte bi ko préfet Linguère tere mali Gakou nga yaakaar ni dafa am lu lu xew foofu mais xoolal léegi presque dañ leen di topp tànk ak tànk fu ñu dugg. ñu génnee fa contexte interdire leen mais en fait ça devient ridicule ça devient ridicule et quand même l'administration la nañu xoolaat seen bopp parce que gis nga élection fii Sénégal lu tax saa yi bu ñu waxee te élection ku jéggi déggoo ci ni élection yi mën na jaar yoon parce que dañu naan ministre de l'intérieur organisé wul administration mooy organisé administration boobu nañu fexe. bañ koo dugal ci lii parce que li ñu ko dugal administration bi dafa ñaaw bu ma nee administration ñëpp laa wax muy exécutif territorial bi préfet yi ak yooyu mais muy aussi ñi nga xam ne ñooy exécuter seeni ordre xoolal image yu Malick Gakou man préfet bi yónni alkaati mu ñëw ci meeting di joxe këyit moom sax am na kersa wallahi boo ko xoolee sax xam ne am na kersa parce que am na loo xam ne du yëfu gor peut-être dañ ko ko defloo préfet bi mooy chef am bu ko joxee ordre mu ne exécuté ko mais moom ci boppam am na kersa ci ñi mu ñëwee parce que ñëw joxe këyit xoggali ku toog xaar mu bind xam nga lii lii boo ko xoolee sax xam ne am na kersa te lii la ñu war a moytu parce que li ñuy bàkkee élection yi li tax ñu naan élection mën na am te du am labaj du ñu wax ministre de dañ naan toujours administration moo koy organiser hmm. mais lii boo gisee ni administration bi di doxalee tey amatul fu bi mën a defee rassemblement fu ñu mën a defee meeting lii limite on aurait pu en rire Malick Gakou candidat à la présidentielle entouré allez on va le dire d'une cinquantaine cent personnes pour un meeting d'un leader qui aspire à, à diriger le pays mënoon nañu ko mënoon nañ ko tourner noonu sax lii mu toog ci fauteuil am ak une cinquantaine cent cent personnes limite mënoon nañu ne mais kii bu dee lii lii mooy mbooloom mënul diriger Sénégal donc amul benn amul benn danger amul benn enjeu te même danger bu amee parce que li ñuy faral di wax mooy nañu moytu préfet bi walla exécutif bi peut-être dafa am information yu ñu amul amul benn information bu ñu amul loolu ay naxaate la te bu amee information bu ñu amul mais am na force boo xamante ni ni moom la war a mën a utiliser pour empêcher ces troubles la mais c'est pas en restreignant les libertés des gens. Hmm. et nan nga mën a xalaatee ni fii moo am trouble. li premier ministre Amadou Ba def li candidat Amadou Ba di def parce que tey bu ñu sañee ne candidat Amadou Ba parce que moo incarné candidature benn Bokk Yaakaar te ci la nekk même réunion politique yi nga xam ne ni mu ngi koy amal on on le sait. mais sew sew bi xañ na foofu la nekk Abdoulaye Cissé ñu ngi ko doon wax sànq euh, Cheikh mooy la fait amadu Ba moom mooy premier ministre xañ na mën nañoo jël yenn déplacement yeeg yenn yi muy def yëpp activités yi ñu def ko ci euh, cadre boobu noonu. waaw mais je pense que loolu sax moom moo waxuma sax justifié mais loolu moom moo war a tax mu quelque part mu war a tekki ndombu tànkam ñu def beneen gouvernement boo xamee ni day liggéey moom moo mën a nekk au même niveau que yeneen candidats déclarés yi nga xam ni ñoo nekk ci présidentielle ñu traité leen de la même façon parce que mënoo nëbbatu ci euh, mbubbu premier ministre dem di defi say euh, déplacement ci yenn gox yi euh, parce que yaay chef du gouvernement bi alors que ñëpp xam nañ ni ko ci suuf yaa ngi def sa campagne électorale je pense que loolu war war warta mën a nekk te wax dëgg fa yàlla jiitu réew mi bëkki démb rek mu ngi wax fële ca tribunal Nations Unies, que le Sénégal va organiser des élections libres et transparentes. Et je pense que élection libre et transparente yooyu yemul rek ci jouru élection bi. Euh, voilà c'est un processus boo xamee ne ca ndorteel ba lay euh, commencer euh, ñu yemale candidat yëpp teg leen sur le même pied comme ça. compétition bi euh, mën a mën a normal mais dans ces conditions là suñ ko defee euh, suspicion bi day commencer euh, dès dès le début et après ça va fausser le jeu. Mm, mm. je pense que li nga xamante ne moom moo xew fay Sénégal fan yi du dëgg du yoon. ndax ab démocratie comme ni ko Ablaye jàngatee sànq day loo xamante ni homme de femme opposition comme ni may pouvoir opposition bu aussi li ni def. ay activités yoo xamante ne constitution bu Sénégal moom moo leen ko may ku dem ci article 4 bu constitution di gis li nga xamante ni moo fa conféré ay droits d'opposition Sénégal gis nga ko bi ñu fi référendum bi mu fi amee en sax demoon nañ ba fi wax waxu statut chef de l'opposition et mu mel ni kon ñoom li nga xamante ni ko pouvoir bi defee bu ñu bëggee am seen i manifestation ñu koy def te di weesu sax di euh, occuper la voie i activité politique exactement foo a dem ñu ne à l'ordre public ak manifestation yi même si c'est réglementé wala dafa am lu lu ci loi wax dañu toll ci période boo xamante ni nit ñi dañoo am droit di wax li leen seen xalaat ni ñu koy waxee nag mën naa nekk ci ay activité politique sur le terrain wala ñu koy bind extra mais munoo ban leader kii mu ngi ni Bougane Gueye dégg dañ ñu ne dem na ca Kousanaar ñu bolok ca Kousanaar nga dem ca euh, ñu ne Malick Gakou tamit ñu ngi koy topp fu munta dem li nga xamante ne mooy activité politique am di ko amal ñeneen ak ñeneen noonu joo xamante ni gis na fii démb euh, Amadou Ba ànd ak Mamadou Ndoye Bane meeru Pile ñu ngay mm-hmm. mën a seen activité ne dañuy lancé ay bitumage benn tali boo xamante ni campagne la fa defee d' mm-hmm. activité gouvernementale mais ñoom nii ni amee a leen opposition bi aussi noonu lañ ko mën a defee mais bu fekkante ni ñoom dañuy dafa xaj ak seen daf ci am am surtout administration bi nga xamante ni ñoom ñoo war a à ce que mbir mi di jaar yoon deful noonu dooy dem ba c'est même ridicule parce que l'agent de police là qui débarque comme ça ci benn tente boo xamante ni bu fa demutoon sax nit ñi di ko sàmm looloo tax quand nit ñi bu leen ko teree wax nga gis njiitu réew ba mu bitim réew la la ko fa dal parce que euh, biir réew mi nit ñi mënatuñ fee manifester et je pense que a un acte moom mooy seen message parce que c'est comme ça nit ñi moom boole ku leen tere wax sa xalaat rek ñoom it ñu am d'autres moyens yoo xamante xëy na di leen et je pense que loolu mooy waral Sénégal toll ci situation bi nga dem ci stade de football yi wala foo dem nga dégg gone yi di fa woy Sonko wala di fa woy keneen parce que mayuñu leen ñu mën a exprimer li nga xamante moom mooy seen colère ci nin ko war a defee te mën naa mën a nekk ci rassemblement mais munoo chaque fois rek ngay abuser naan menace de trouble à l'ordre public fii trouble à l'ordre public am trouble yow nga ñëw di gazer ay nit wala nga ñëw fekk ay nit yoo xamante ne ñi am seen meeting wala seen rassemblement nga tas ko mm. trouble à l'ordre public euh, euh, la dernière fois <clears throat> l'observateur pardon euh, defoon na ci benn xeetu jàngat mu ne nguur gi ni ñuy def ba créer ay monstre xañ na noonu lañ koy tuddee mm-hmm. parce que nit kuy def ay activité politique am nga bëgg di ko bunu loolu moom mooy tax xaj na nit ñi di intéressé wu ci moom li muy def. voilà ba may ko benn doole bi. voilà loolu yëpp dafay dafay ñëwaat lii sama euh, confrère yi wax parce que boo xoolee suñu doyen Abdoulaye Diallo berger de lii hmm. dafay faral di wax mu ne la politique c'est une affaire de euh, de l'élégance et de la responsabilité après mu ne donc c'est une affaire de de gentleman te boo xoolee Sénégal dafa loo xamante ne. dañ ko doon tiitaroo biti réew muy les acquis démocratiques donc li ñu seetlu jamono ji muy am ces derniers mois mosu fi am ci wàllu démocratie yi mosul am ci langu politique wala néew na ay responsable politique yoo xamante ne dañu am envie dem taseek seeni seeni militant nga leen koy tere au départ man je me disais que Dakar la yem bu fekkoon c'est dans la capitale mënees nañu wax peut-être trouble à l'ordre public wala peut-être li Ablaye wax léegi xëy na am nañ information yoo xamante ne échappé nañu. mais bu demee ba génn au de delà de la capitale ça pose problème te boo xoolee Malick Gakou comment il a accueilli cet agent xam ne peut-être am na leader yoo xamante ne bu doon ñoom mën am xiiroo ngaayoo mais bon malgré tout c'est ça l'élégance donc il faut kilifa yi aussi accepter que ñii dañu yootu bopp réew mi te li nga xamante ne mooy jëmal démocratie mooy ku ci nekk nga may ko li nga xamante ne. mooy aspiration maanaam mu dem a ak militants yi bu ko defee élection yi ñu dëgmal ñu mën ko amal ci ay anam yu mucc ayib parce que euh, lii dafay xaw a niroog lu ñu duppee tordre le cou à l'élégance donc mm. bi Françoise Coblentz euh, di di théoriser souvent mm. te loolu bu amee ci wàllu démocratie rek njeexital bi mooy kenn dootul wóolu sa borom. Mm. te bu boobaa aussi dafay am beneen conséquence boo xam ne bu ñu demee ba ñu ne diw moo gagné rek mën na am ñoo xamante ne peut-être euh, seen seen duñ ko nangu. donc ci ndorteel bi mm. lañuy tëral lépp. Mm. jaarale ko si yoon ku ci nekk am droit. Mm. nga ñaan autorisation ñu may la ko. bu dee da ngay manifester nga manifester. Mm. def ko dans les règles de l'art mm. bañ a déborder bu ko defee tamit gouvernement bi ni ñu doxale nii nu may opportunité mm-hmm. euh, leader de l'opposition tamit ñu mm. defee ko noonu merci beaucoup Ibou euh, merci alors euh, de quoi est-il euh, pardon <laughs> un jour au Sénégal un jour dans le monde dinañ ci ànd ak yéen ci kanam tuuti mais